إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم قال جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون بكي جنا بني سنت يالله سني بروم سبحانه وتعالى ديكو ديمباليكو ديكو ñaan mu jéggal ñu suñuy bakkar moom borom bi subhanahu wa taala mii jubalaate te képp ku mu jubal kooku mucc nga yàlla na yàlla jubal waaye képp ku mu seetaan it ci maandu teem ba nga jàdd yoon amul kenn ku la mën a jubalaat ñuy dénk suñu bopp mbokk yi di leen dénk ragal borom bi subhanahu wa taala ginnaaw bi ñu seedee ni amul kenn ku nar a jaamu ci dëgg ku dul moom di seede ne suñu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la yàlla ñu ko yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak képp ku topp njubu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam booba bis penc di taxaw mbokk yi ñu dénk suñu bopp di leen dénkaat ba tey lii di taqwallah borom bi subhanahu wa taala mu ni ey yéen ñi gëm na ngeen ragal yàlla wal tanzur nafsum ma qaddamat li gad te ngeen di yóbbalu ca fee ngeen ngeen di jëm mu ci àllaaxira ci ak yiw mu ni wat wattaqullah te na ngeen ragal yàlla ndaxte inna allaha xabirum bi ma taamaluun yàlla de ku dañ kumpala ci lépp lu ngeen di def mu ñu dénk nag ni ñu bañ a nekk comme ñi nga xamante ni ñoom ñoo fàtte woon seen boroom ci ginnaaw bi leen yàlla xamalee mooy kan ñooñu dafa yàlla mujj ak ñoom mooy yàlla leen a fàtte yàlla ñu yàlla musal ci ko yàlla fàtte yàlla mu ne ñooñu da ay kàccoor lañ yàlla mu ne nag du yem mukk nag ñi nga xamante ne ëllëg su may fay du yem mukk waa kuréel ga jëm safara du yem mukk ak ñi nga xamante ne ñoo jëm aljanna yàlla ñu yàlla boole suñu yëpp aljanna mbokk yi ñu ñëwaat ci suñu xutba bi weesu di ko sof ci suñu xutba bi muy maada baada ramadan ginnaaw weeru koor ana lan la jaam bi war a taxawee ana lan moo war a nekk suñu dundin ndax kii borom bi subhaanahu wa taala de képp ku mu fekkeloo weeru koor defal na la ngëneel gu rëy a rëy rëy muy ngëneelu fekke mu fekke loolu naka nag nga dund ko ba mu jeex loolu it nekkaat beneen ngëneel ndax am na ko tàmbali te jeexalu ko yàlla defal la ñu ngëneelu ñu dund ko ba nga dund fukki fan yi nga xamante ne ci lañ doon wër leelatul xadr nga dund ko ba mu jeex di ko taxawal yàlla ñu yàlla nangul mbokk yi xéewal yooyu yëpp yàlla dajale ci ñun ndax dañoo war a génn ci weeru koor bi rek dal di koy sànni mu bokkoon ba tey ci xéewal yooyu mbokk yi ginnaaw bi ñu génnee ci weeru koor yàlla suñu boroom dafa waxoon ak malaaka yi mu ni leen wa huna yubaahi bihimul malaayika yàlla da doon puukarewu ci kanamu malaaka yi mooy si suñu kor yi mu ne xool leen sama jaam yi xool leen sama jaam ñi wooroon mu ni leen xool leen bunti aljana yi ni ma leen ko tijjilee ndax set nañ wekk ci bàkkaar xool leen buntu safara yi ni ma ko tëjee ndax araamal naa ci ñoom safara al wataqa minan naar lañ bokk léegi mu ni nag malaaka yi maa ngi leen di seedeel yéen malaaka yi ni sama jaam yi ñëpp jéggal naa leen allahu akbar mbokk yi teraanga googu la ñu jógeeg yàlla ci jamono jii ñu génn muy weeru koor kenn suñu mag ñi de Cheikh Ahmadou Bamba mu ni woon lii di weeru koor de ataabil bishri wala adal dafa ñëw indil ñu ak ay ay mbégte mbégte lan la mu ni xirat taat ay bernde bernde yoo xam ne ni berndey jaamu yàlla la maanaam xeetu jaamu yàlla yépp moo yomb ci koor gi lépp na sa kanam yàlla defal ñu xéwalu nag jël ki nga xamante ni moo ñu daan tayalloo muy iblis mu jatañu ni ko jatañ ko mook seytaan yu fakkirul yépp mu ni nag yow boo génne ci koor gi xirat taat yooyu da ngay def ni su yaa Aysa waxoon ci li mu jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su yaa Aysa nee na mu ne qaalat qaala alayhi salatu wasalaam ahabu al amali ila allahi taala adawmuha wa in qalla jaamu yàlla yi nga saxoon doon ko def ci koor gi muy naafile yi xoolal chaque jour di nga def tarawih boo xamante ne da ngay taxaw a taxaw a taxaw a taxaw te doo ko yëg guddi yi ngay taxaw say qiyaam te doo ko yëg ndax kala ka daan tayaloo yàlla tënkal na la ko nee na boo ci génnee nag na nga def li yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale ci sa di xadis yi Aïcha bi nee na nga ca tànn loo xam ne na nga koy warloo sa bopp nga ni man mii de su ma jullee tee gee ba noppi bala maa jullee tee safaak witar daa julli ñaari rakk alal aqal loolu nag nga saxoo ko alal dawaam di nga am li yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxoon jibril alayhi salaam ca keroog ba ñu rañaane yonente bi sallallahu alayhi wasallam daf ni waaye jibril karaas karaasu tànk yi may dégg nii ci biir aljana ji moom kii kan la mu ne ko kii de sa noddukat bala bilaal yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee daf ni bilaal waaye yow noo def ba jiitu biir aljana sa karaas karaas tànk yi damaa ngi ko doon dégg waaye lii lañ ma ci wax mu ni ko li ma jàpp de ci xeetu jaamu yàlla gi ma saxoo di ko def mooy amul fu sama njàpp di siree ko ma jàpp dul damaa julli ñaari rakk toftal ko ca bu dee ni naa fi la dagan na lii daal xam naa ne lu ma saxoon doon ko def la yonente bi sallallahu alayhi wasallam ni ko loolu la kon xool leen lu ndaw loolu bilaal daan sax daan ko def mooy li ko yóbbu biir aljanna kon suñu yaay Aïcha lii la nettali ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu ni war ba tey moom suñu yaay Aïcha mu ni kaana rasul alayhi salatu wasalam ida amila amalan asbatahu nee na yonente sallallahu alayhi wasallam bu musaan di jëf benn jëf nee na loolu luy continuer lay doon man du ko jël rek tey bu toolee jamono mu bàyyiwaat mais daka daan jël ala dawaam mu ni wa kaana ida naama bil layli aw marad yonente bi sallallahu alayhi wasallam bu musaan a tëdd guddi gi ba nelaw naafilawu ci guddi gi wala mu feebar ba naafilawu ci guddi gi nee na ci bëccëg bi la koy dabu ci bëccëg bi nee na dina ci julli isnatay asharata raka dina ci julli fukki raka ak ñaar yoo xam ne da ko warloo woon boppam mbokk yi tënk gi mooy jaam bi da nga war a jël ci xeetu jaamu yàlla yi nga jël loo xam ne da nga koy warloo sa bopp dafa mel ni ci alquranul karim xam nañ ci koo xamante ni ci kaamil bi moom lay toppee weer bi kaamil lay toppee weer bi bu ne benn fan ngi ni ci weer bi muy weeru shawwal masalan ci lay jël benn jukki jukki numéro un ñaari xisib moo ci nekk ci bis bi dina fexe ba jàng ko ci bis bi su ëllëgee muy ñaareel fan ci shawwal mu jëlaat beneen beneen ñaareel jukki bi noonu la koy toppee ba saay boo ne ko tey la ñaata fan ci weeru olof buur yëkkatee jukki ba dina la wax tey la ñaata fan ci weeru olof julli dafa topp weeru olof mu warloowaat boppam ci waxtu woo xamante ni képp ku ko ci soxla da nga koy xaar muy diggante timis ak gée saa yi boo ko fekkee ca këram ci waxtu timis ak gée xamal daa tawat nee na loolu dama koo dagg ci nag dund jaayante ko sama borom loolu mooy li suñu Aysa nettali ci lii nga xam ne moom la yonent saa salaam saxoon na nga ko def mbokk yi nag di saxoo lii nga xam ne ay nawaafil la ay coobare ci jaam bi ana lan la koy jural yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax ci xadisu qudsi mu ni yo mu ni yàlla suñu borom subhanahu wa taala dafa wax ni ki nga xamante ni dafay coobarew ci naafila sama jaam bi deful li gën defaluma lu gën li ma farataal ci moom li yàlla farataal ci farataal ci yow nga def ko yàlla mu ne defaloo ma lu gën loolu ginnaaw loolu nag nee na nga coobarew ci naafila loo mën a coobarew loolu soo koy def rek nee na amul sama jaam bu koy def lu lu ma dama kaa bëgg taman yàlla su ma la bëggee nee na am nga garanti moom la wax ni wa man aada man aada li waliyan faqad aadantuhu bi harb képp koo xamante ni kooku def farata yi ba pare di cooba rew ci naafila am nga ak moom benn dig maanaam jug nga di ko attaqué yàlla mu ne attaqué yoo ko man maa la attaqué guerre subhanallah mbokk yi yàlla attaqué la guerre mooy yow yaa nekk contre lépp lu la wër maanaam yow la contre lépp li la wër mu ni nag sama jomb sama jaam bi bu eggi ak foofu ci man amul loxo yu muy yëkkate ni allahuma lu dama ko nangul li muy sàkku ci man bal su ma demee sax ba war koo faat man yàlla bu demee ba ay bisam jeex damay ñeewante ko pour jël rub ruwam ndax dafa nekkoon ku doon góorgóorlu ci dama jaam aqulu ma sami'tum wastaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril muslimin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله استمروا في الدعاء كما قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون موكي ويركور جهنا waaye ba tey jaamu yàlla jeexul weeru koor jeex na waaye ba tey yàlla bi ñu doon ñaan ca weeru koor ba tey yàlla jooj moo fi nekk keroog bi mu farataalee lii di weeru koor te jeexitul aaya ba la wax ni wa ida sa'alaka ibadi anni fa inni qarib mbokk yi baatu yas'ala li mu ñëw ci alquranul karim lu ci bëri bu yàlla di wax yas'alunaka anil ahilla danaan yoon sa sam kul waxal hiya mawaqitu linnas da koy wax waxal la nga leen war a wax waaye ci ñaan gi bu mu nee wa ida sa'alaka ibadi anni su la sama jaam ñi laajee man anama waxul waxu kul de wax leen daf ni fa inni qaribun ku leen jege laa ujibu da'wata da'i ida da'ani képp ku ma ñaan rek ma may la waaye ay charte la nag mbokk yi est-ce que xam nañ ni yàlla fa mu daan sotti ba tey mu ngi fay sotti yow nag yaay laaj ndax yaa ngi dékk wala dékkuloo fa war a sotti ten du fekk kenn waaye robinet bu la ko ubbee fële di dékk fii yàlla fa mu doon sotti ba tey ma ngi fay sotti mu ne nag condition yi tax ma nangul la sag ñaan muy fa fa les jibu lii nang ma gëm ba pare topp samay ndigal condition ak noonu soo ko defee mu ni xal sedd na fa les jibu lii wal yuminu bi laallahum yarshudun man yàlla xal set naa leen teg ci yoon bi nga xam ne moom mooy yoonu jub kon yoonu jub mooy fa ngay teg pour dégg yàlla ñu teg ci yoonu jub al istijabatu bil iman wa taat wal inqiyaadu wal izyaa fii mooy fi nga xam ne fa la jàmm bi di dëkk ngir yàlla sotti ko ki nga xamante ni dafa amoon jafe-jafe pour dégg mokkal mokkal mu ñëw ci borom xam-xam bi ni ko man de damaa am jafe-jafe yi mokkal lu mel ni mokkal alquran bëgg naa ko mokkal lool waaye man mii daal dama xam ni sama xel mi daal dafa mel dafa tëju lan la ko borom xam-xam bi wax mu ne ko ci xooxu shaayir bi shakawtu ila waaki an su ay xibsi sa lam ko irsaat mooy fa arshadani ila tarkil maasi bàyyi ma mbaadu da ngay moy di mbaadu da ngay da ngay moy yàlla donc faalam bi anna al ilmu nuur xamal ni xam-xam leer la wa nuur allahi la yuta li aasimin leeru yàlla yàlla ak leeram du ko sotti ci ndax bu tax kon yow bokk na ci lii tax yàlla nangu la say ñaan mooy na ngay xool say jëf xool la ngay lekk xool la ngay sol yooyu yëpp bokk na ci li nga xamante ni dinañ ci nangul jaam bi ay ñaanam mbokk yi ba tey ginnaaw ramadan ana lan la jaam bi war a taxawee mooy al istiqamatu mooy constance yàlla mu ni inna alladina qaalu rabbuna allah ñi nga xamante ne de ci koor gi dañ ni woon gëm nañu yàlla mu ni la ca des nag mooy al istiqamatu summa staqaamu ginnaaw bi génne ci koor gi da ngay sax ca la nga doon def wala nga coobareew ji ca la nga war a def ca ay nawaafil ginnaaw bi nga xam te ne faratee moom du la wàcc bu boobaa nag di nga am sécurité bu yàlla di warlu ak yow mooy tatanazzalu alayhimul malaayika allaa taxaafu wala tahzanu yàlla ne na ma maa yor sa garantie dama lay wàccal ay malaaka yoo xamante ni ñooy boo demoon bay faatu dañ lay won la ngay fekk ji ni la bu ca tiit leela la yàlla dencal ci ay xéewal ndax da ngaa nekkoon ci al istiqama wala tahzan la nga nar a bàyyi ginnaaw it bu ci tiit dara ndax yàlla man yàlla man maa la yoral sa ginnaaw loolu sécurité la mbokk yi boo ñëwee ci xadis ku ñu wax sufyan ibnu abdullah as-saqafi radiallahu anhu nee na dafa ñëwoon ila nabi alayhi salatu wasalaam ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne woon qul lii fi l islaami qawlan la asalu anhu ahadan gayrak wax ma lenn ci islam loo xamante ne soo ma ko xasee ba wax ma war koo jëfee du ma ko laajaat keneen loo xamante ni su ma koy jëf mooy li ma war a yóbbu aljana te du ma laajaat keneen ginnaaw bi ma la laajee laaj bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci jàngaleem bu rëy mu ni ko qul amantu billah summa staqim ginnaaw ba ngay waxee ne gëm naa yàlla rek nee na nga tax ci boobu lii bul wàccaat al istiqama ba tey ci anas ibnu malik radiyallahu anhu mu ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na la yastaqimu imaana abdin xatta yastaqima qalbahu nee na doomu aadama ak ngëm yàlla mënugul taxaw nekk ci constance lu dul ak xolam dafa nangoo pare lu dul dafa nangu ba noppi mu ni wala yastaqimu qalbuhu xatta yastaqima lisaanahu qalba nag xol bi mënul nangu lu dul sa làmmiñ wii dafa da nga ko muccal ci lépp loo xam te ne ab ayib la wax ju ñaaw ak lépp loo xamante ni ak lor la buy bàyyi ko ci yow jëm ci keneen mu ni wala yaduxulu wala yaduxulu rajulun aljanna laa yamanu jaarahu bawaitahu mu ne nag amul kenn kuy dugg bi aljanna te fekk ni yow say dëkkandoo dangaa fees dell ci ak lor boo leen di lor lor ci sag làmmiñ wala lor ci sag loxo nga gis ni kon mbokk yi al istiqamatu de dafa mel ni rek nit ki taxaw ni la man gëm naa gëm naa yomb na waaye sax ca mooy la jafe yàlla ñu yàlla defal assadaad wal istiqamatu rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله